ñu ngi leen di nuyu téléspectateurs yu leeral TV am mbégte àndaat ak ci seen capsule il fait le buzz comme ni ñu koy defee en semaine bu jot tey nag dañu leen àndil ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop mm-hmm. ginnaaw bi mu génnee àddina dimanche bi ñu génn Sénégal daal di ñàkk monde foot daal di ñàkk ñëpp di ko jooy moom Pape Bouba Diop mu nekkoon nag ku bégaloon euh, Sénégal ci atum 2002 bi ñuy janoo ak réewum France mais laata ñuy gën a yaatal ci loolu dinañ leen xamal ci tënk kan mooy Pape buuba Diop wax leen ci jaar jaaram tuuti Pape Bouba Diop mi ngi judd le 28 janvier 1978 euh, fii ci Dakar HLM Tëngéej foofu la euh, juddoo moom euh, Pape Bouba Diop bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy parcours junior maanaam fi nga xam ne moom la dooree mi ngi tàmbale ci saltige ci atum 1994 jàpp 1995 mu def foofu benn at ginnaaw bi la daal di dem ca Jaraaf ci atum 1995 jàpp 1997 wante moom Pape Bouba Diop ku teeloon bëgg li nga xam ne mooy football depuis ba mu nekkee xale ndax gis nañu seede yi nga xam ne ñenn ci ay jegelaalem daal dinañu koy wax moom Pape Bouba Diop bi mu amee juróomi at la dooroon di nekk ci mbedd yi di football donc bu bégalee euh, sénégalais yi ci atuma 2002 nekkul loo xam ne lu leen euh, bett la moom euh, Pape Bouba Diop ñi di famem nag ñoo daal di xamle lu ni mel bu ñu ñëwee ci parcours junioram moom Pape Bouba Diop jaar na fi nga xam ne mooy Jaraaf daal dinay dem aussi ci yeneen club ku ci mel ci mel ni Angleterre jaar na fa trois club Suisse également jaar na fa ci trois Diane tamit euh, Grèce euh, sélection équipe nationale la ñuy daal di ñëw 1996 jàpp 1998 euh, Sénégal Espoir 2001 2008 Sénégal mu daal di def moom Pape Bouba Diop lu toll ci 63 matchs daal di dugal 11 buts mu nekk loo xam ni c'est pas donné am n'importe ki gis nañ aussi te ci ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum foot jàngat bi nga xam ne def nañ ko ci donc moom Pape Bouba Diop nekkul woon joueur bu ndaw gaynde dëgg la woon njàmbaarte la daan wane bu nekkee ci biir terrain bi leneen itam itam loo xam ni marqué na loolu nit ñi ci moom di yar bi nga xam ni moom la nekk ci moom ñëpp seedeel ko ko mu nekk koo xam ne dafa bëri kersa moom Pape Bouba Diop feebar bi nga xam ni moom moo ko daloon di feebar bu ñuy wax Charcot moom Pape Bouba Diop mu nekk ak feebar bi ah ñaari at kenn musu ko xam bëggul woon sax kenn xam ni feebaroon na moom Pape Bouba Diop ñi ngi wax sax ni ñenn ci ay journaliste bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yëgoon nañu feebaram wante bëggul woon kenn xam ko ki nga xam ni mooy Henri Camara itam nekk koo xam ni jege woon na ko lool diggante ñoom ñaar na ni yéex ah, ki nga xam ne mooy ah, Pape Bouba Diop bi mu génnee àddina ah, bi nga xam ni moom la ci njiitu réew mi Macky Sall def ak ni mu ko xaaree mu xaaree kooru Pape Bouba Diop ak yiir ko moom Pape Bouba Diop Sénégal gi yëpp daal di daal di génn dalal ko delloo ko njukkal bégal ko comme ni mu ñu bégalee woon ci atuma de kii di njiitu réew mi Macky Sall nag ba Pape Bouba Diop dee ñëw ca AIBD foofu sax la daal dee ni lii di musée bu jam jam ñaaja dinañ ko fas yéene tuddee eh, ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop nekk loo xam ne bi ko nit ñi yëgee ñëpp ko rafetlu parce que mérité noonu lu ko raw 2002 nekk loo xam ne bi muy am am na ñenn ñoo xam ne ay tout tànk lañ woon wante ba léegi eh, dañuy fàttaliku ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop ak bii bu rafet boobu nga xam ne eh, dugaloon na ko mu nekk na koo xam ne amul ak xaar ma yàlla ak benn joueur gis nañ seede yi nga xam ne El Hadj Diouf def ko moom moo gënoon naqari deret ci équipe nationale ci seen jamono yooyu waaye Pape Bouba Diop musul jote ak doon rek koo xam ne dafa mëne woon ci football bi waaye nekk na itam koo xam ne yar la ñu def ci moom moom Pape Bouba Diop gis nañu doomam bi nga xam ne mooy Aro témoignage yi nga xam ne daan na koy def ci papaam di xam ne dafa fier am mbégte lool ci ki nga xam ne mooy papaam gis nañ itam jabaram ni mu seede ci ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop kon gaynde dëgg moom moo daal di làqu muy Pape Bouba Diop ni ki bax dem nag lañ ko daal di jébbal boroomam ca fa nga xam ne mooy juma bu a dangu nekk ca HLM Tëngéej moom Pape Bouba Diop nag koy ñaanal yàlla mu daal di koy yërëm xaare ko àjjana te oyofal suuf ci kawam te ñu xam ne rek du mës a deñ ci xolu sénégalais yi gis nañ El Hadj itam li nga xam ne daal na koy wax ci njaboot yi nga xam ne Pape Bouba Diop daal dina leen fii bàyyi xam leen na ni seen papa dem na waaye am ngeen ay papa ba tey am ngeen ñu leen taxawu loolu di kàddu goo xam ne ñëpp ñoo ko rafetlu ki nga xam ni mooy El Hadj nag moom moo ko daal di jëkkati te bu waxee waxal na équipe nationale waxal na joueur yëpp yi nga xam ne ñoom la doon footballoon di ay naataangoom ci atum atum 2002 mu nekk taxawaay bu rafet boo xam ne euh, taxawu nañ ko euh, kii di nga xam ne mooy euh, Pape Bouba Diop waaye du fii rek Sénégal ndax gis nañ itam hommage bi ñu ko doon rendre ca Lens nekk ca France joueur yu bari daal di nañu koy teewee France ñu ci bari daal di génn joueur yi nekk aussi ci yeneen club yi ñëw feet fekke lu ni mel te lool c'est pas donné à n'importe qui dafay wane que ni Pape Bouba Diop taxawaay bu am solo bi nga xam ni amoon na ko fii ci réew mi waaye tamit ci àdduna war nga këpp la ñuy wax ndax monde foot moom moo daal di ñàkk Pape Bouba Diop ñu koy ñaanalaat encore une fois yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ni mu ñu bégale woon yàlla daan ñu koy bégale li na leen andiloon tey ci seen capsule il fait le buzz ñu leen di jox di daje semaine prochaine incha allah